Euh, Abdou euh, député, président de la commission des affaires étrangères, euh, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale, responsable politique à Thiès et conseil départemental de cette même localité. En même temps, je suis le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Euh, comme ni nga ko waxee euh, bi ñu falaatee président de la république ak léegi ci bopp réew mi mën naa ne mi ngi toll ci benn at euh, ñu jàpp na nag bañ ko faleeg léegi am na sumb yu am solo yoo xamante ni mën naa ne non seulement ci àggali la doon loo xamante ni tàmbale woon na ko ci premier mandat bi mais ak sumb yu bees yoo xamante ni war na ñëw ci deuxième mandat bi loolu nag mu nekk loo xamante ni lu am solo la parce que boo xoolee situation financière et économique bi nga xamanteni ni mo nek ci réew mi ci euh, biñu jéxal atum 2019 mën nañ ne euh, Sénégal li nga xamanteni ni mom moy santé économique ak financière am lu am solo la ci biñu jéxal gestion 2019 bi parce que gis nañ euh, économie bi nek na ci dynamisme bu am solo parce que bo xolé li nga xamanteni ni moom la croissance économique de ñukoy

Euh, lolu mu doon lo xamanteni ni euh, lu am solo la parce que ñun ñi ngi tollu ci déficit euh, budgétaire bu 3 pour cent te critère de convergence yu UEMOA yi dem na ba 7 pour cent donc lolu moy wane ne ñun suñu économie nek na ci lo xamanteni ni lu am solo la ci walu budget 2019 li nga xamanteni ni mom moy walu ay recettes am na lu am solo yo xamanteni ni amon na te gis nañ ne exécution budget bu 2019 yeggoon nañ ci 98,4% virgule pour cent muy wane 100 bo xolé mom mo don objectif yi ñu dem ba 98,4 lolu mu don lo xamanteni lu am solo la euh, li nga xamanteni mom moy aussi ay prépondérance des dépenses d'investissement mom moom nañ gis ne manam dépenses d'investissement investissement yi mom mo upp ci walu budget bi lolu moy wane budget bi nek lo xamanteni dañ koy jël rek diko def fonctionnement parce que état bu fekkee ne fay investir ci li nga xamanteni mom la am ci alal da fay wane dynamisme bi nga xamanteni mom mo am ci wàllu euh, dépenses su budget bi te da fay wone encore ne amna rationalisation manam yaxanal bu am solo bo xamanteni Amna ci walu budget parce que nak aussi il faut ñu xamné masse salariale bi lu am solo la te nekkoon na loo xamante dañu ko contrôler te gis nañ ne ci at mi aussi année sociale bi nga xamanteni mom lañuy wax nekkoon na lo xamanteni lu am solo la parce que président de la république gis nañ ne euh, li nga xamné moy PUDC ñu gis né aussi amna li nga xam ne programme national des bourses de sécurité familiale ñu gis ne Promoville Madame ci vois ville yi ñu am ay liggéey yu am solo ñoo ñu ngi ko ci doon def li nga xamné aussi moy piment, moy programme d'urgence et de modernisation des axes territoires frontaliers ñu gis né aussi délégation de l'entrepreneuriat rapide muy DER yooyu yëpp mu doon lo xamante ni lu am solo la woon te par yu am solo moom moo waroon dugg ci lool ñu gis né nak pour paiement dépense yooyu yep. Euh, ressources yi nga xamanteni mom le trésor dégagé tolloon na ci 463 euh, milliards virgule 3 te lolu dañ ko mobiliser totalement pour def ko ci programme yi nga xamanteni mom la laa wax léegi euh, dem nañ ba ben moment sax am nañ ben dépassement bo xamanteni ni toll na ci 145 milliards ñu daal di koy jël yokk ko ci li nga xamanteni mon budget 2020 bi xam nga aussi dafa doon loo xamante am solo la te loolu mooy wane ne koom Sénégal ci at mu mujj mi am ay avancées yu am solo Benen bi moy yaa ngi gis ren 2020 ñu commencé budget programme te ku wax budget programme wax d'abord transparence euh lu gën a ci walu gestion budgétaire parce que budget programme mooy d' abord bu njëkk dañ daan am ay budget dotation maanaam dañuy jël benn xayma rek ñu ne lii kat jox nañ ko ministère bi maanaam euh, ñu jël ne bu ñuy voté budget dañ naan titre del titre tel titre tel mais ren 2020 dañoo am ay programme par exemple dañ ne ma jox la exemple boo demee ministère de l' éducation nationale ñu ne programme élémentaire programme secondaire programme nangam bu nekk dafay am benn budget ba pare nag programme bu nekk ñu nommé par arrêté li nga xamante ni moom mooy responsable programme parce que ministre bi mooy nommé arrêté ne responsable programme kooku mooy exécuter budget bi donc 2020 depuis le 1er janvier ñi ngi doxal li nga xamante ni moom la ñuy wax budget programme parce que dafa am benn directive boo xamante ni moom la UEMOA joxoon directive 09 boo xamante ni moom moo wax état yi nañu doxal budget programme mu am loi organique boo xam ne woote woon nañ ko pour defar budget programme bi mais am na sax loi bu bees boo xamante ni woote nañ ko ci jamono yi passé pour budget programme te loolu nag mu doon loo xamante ne ni lu am solo la par rapport ak fonctionnement euh, état te budget programme dafa doon loo xamante ne ni lu am solo la parce que dafa am mbir yu bees mbir yu bees yi moom mooy lan moom mooy dafa amoon li ñuy woowee ordinateur unique mooy ministre des finances moom mooy doon kenn koo xamante ni mooy ordonné budget état bi maanaam ministère yëpp te maintenant rek ak budget programme dafay am déconcentration de l'ordonnancement maanaam ministre bu nekk yow yaay doon ki nga xamante ni yow yaay ordonné li nga xamante ni moom mooy doon ce budget te loolu budget euh, loi organique bi ñu wootee bi nga loi organique portant loi des finances dafa wax ne à partir du 1er janvier du 1er avril 2020 ci la ñuy am déconcentration bi nga xamante Mon moom euh, ordonnancement des budgets maanaam ministre bu nekk yow yaay euh, Votre ce budget ministre des finances c'est vrai il continue continuer dire que le 1er avril pas l'ordonnateur unique mais qui budget programme parce que nous, avons abandonné le budget programme c'est parce que nous information une nga euh, information donc c'est aussi dynamisme bi nous a ci Sénégal nous sur le plan social gis président de la République nous avons fait moi d'abord essayer pacifier climat social en quoi faisant mu woote li nga xamante dialogue national euh, non seulement def appel mais aussi matérialiser ko ak acte boo xamante ni nommé na Famara Ibrahima Sagna mu nekk ci kaw comité pilotage qui mu am dialogue national ak dialogue politique te nous gis nañ que les questions qui xamante ni intéressé Sénégal les dañ koy sociales, économiques, question politique sociale économique euh, environnement lépp loo xamante ni dina doxal réew mi ay nit ñoo xamante ni ñoom ñoo am seen xel màcc ci wàll woowu ñu dajaloo waxtaan pour xool ay xalaat saytu mbir yi nga xamante ni jàpp nañ ne war na intéresser Sénégal yëpp ñu def ay proposition président de la République loolu li muy wane rek mooy d'abord non seulement président de la République dafa doon ko ubbeeku parce que mënoon na ne man sénégalais falaat nañ ma sama deuxième mandat au suffrage universel far far ma au premier tour damay doxal li nga xamante ni moom laa am comme vision ci biir réew mais dafa ne non seulement am na vision mais aussi ñi nga xam ne ay plus de 40 pour cent la ay sénégalais woo wooteluñ ko moom dina leen déglu te déggoon nañ mu wax loolu ci li nga xamante ni moom mooy discours d'investiture am loolu mooy wane d'abord ouverture boo xamante ni am na ko ibbeeku boo xam ne am na ko mais aussi bëgg a jël képp koo xamante ni am nga xel moo xamante ni xel mu baax la rafet la pour jëmale réew mi kanam nga def ko ci biir sumbu boobu pour ko moom mu mën ko utiliser mën a jëmale réew mi kanam boole kook vision bi nga xamante ni loolu mooy am loolu dafa dont li nga xamante ni même sur le plan économique dafay gën a dëgëral cëslaay yi nga xamante ni moom mooy wàllu sénégalais gis nañ ne aussi am na bale diplomatique bu am solo boo xamante ni am na ci réew mi gis nañ secrétaire d'état américain ñëw na fi gis nañ ne Pompeo ñëw na fi or Erdogan Ah. ñëw na fi gis nañ ne aussi Pompeo moy secrétaire d'état américain bi gis nañ ne Trudeau ñëw na fi mais lolu lepp moy waré Sénégal malgré que ci walu superficie dëkk bu ndaw la mais dëkk la bo xamanteni dañu ko jox vraiment ce que est un moom parce que ki nga président de la république Macky am leadership qui xamante ci bi Sénégal Nous nag ñu war vraiment euh, rafetlu ba pare suñu diplomatie li nga xamanteni mom la woné bitim rew doyna ñi nga les puissances étrangères ba Sénégal ñu am vraiment un bu am solo bo xamanteni am ci bitim ñu jox ko aussi mu don lu am solo. te loolu jàpp naa ne bokk na ci li nga xamante ni aussi war na wane ne euh, Sénégal réew la boo xamante nii tey dafa compter ci ñi nga xam ne war nañu mën a compter ñoom pour le développement de ce monde là parce que président de la république bi nga xam ne moo ko jiite gis nañ ne sommet yu bëri yoo xamante nii dañ fay waxtaane ci euh, ëllëgu àdduna bi moom dañu koy invité mu ñëw toog te loolu nekk na loo xamante ni fierté Sénégal ak sénégal yëpp la donc pour wax na rek de manière générale bu fekkoon ne par exemple tey jii mën nañuy wax ne Euh, at mii nga xamanteni mom le la président ñu fal ko ak léegi doon na at mu am solo bo xamanteni non seulement continuer yenn sumbu yi gis nañ ko ci mais aussi gis nañ ne amna ay sumbu yu am solo yo xamanteni amna ko ci donc un an bu positif la ñuy wax parce que euh, vraiment lolu amul dara lo xamanteni war nañ ko ci mëna a bien que nak amna lo xamanteni ci doxalinu réew toujours dina am ay euh, yu dess lolu mënut ta ñak waye japp naa ne li nga xamanteni mo dess ci mandat président bi dina am ay jéego yu am solo yoo xamante ni dina ñëw mottali loolu nga xamante ni moom mooy mébétu président de la république pour que Sénégal mën a jëm ci kanam.